gis ci Macky Sall ñii gundaandaat yor alalu réew mi di ci def seen balaxal madda tey jii ñoom foofu lañu ñu toll donc yéen sénégalais yi fexe leen ngeen yeewu sama combat ça a toujours été de combattre la politique politicienne malheureusement li ñu gis ak ñi fi nekk c'est pire politique politicienne dëgg la ñu nekk li koy firndeel mooy jàpp yi ñuy jàpp nit ñi ana Bah Diakhaté tëdd na ba génn Imam Ndaw tëdd na ba génn commissaire na Keita tey jii pour li mu wax nga xam ne mënoon nga ne ko sax demal comme yëf bi amewul ni ñu ko waxee weddi ko mu dem taxaw weddiwaat ko waaye dañ koy jël dóor ci kaso bi xam nga lan lañ ci jublu pour gaa yi ci ginnaaw pour gaa yi tiit xamul ne ne gaa yi pare nañ yàgg na su ma su ma doom bi dafa ñëw fekk su nekk sac bu noir bi ma teg ko mu ne ma mais papa j'ai vu que ce sac là est toujours là ça bouge pas ma ne ko oui sac pour la prison ah ñii fi ne ñii ñoo gën a nekk musiba Macky Sall parce que li Macky Sall doon seet kus néew ci dara ñii dañu rusul dara xam nga nit boo amul xam nga Macky sàll sax boo demoon ba gis ne Macky Sall def na lu mu warul def nga ne xaaral ma dem xooli Thierno Madani wala xaaral ma dem Louga ca Thierno Bachir wax ak moom mais ñii koy waxal amuñu sëriñ wéeruñu fenn kan ngay waxal la preuve la preuve la preuve on nous de Cheikh de Ousmane de Omar Diagne mais Omar Diagne ku ne xam na la mu daan wax kenn baal ma sax ci li may tudd turam parce que pour man wax dëgg yàlla jarut jarut jarut tardé wu mais Omar Diagne li muy wax ci këru diine yi ñoom ña ko fal bàyyi ko ca poste ba mu nekk ba léegi mën naa nekk ci benn société ma moom sama kër man jël la sama signature teg la fa nga jàkkaarloog samay kilifa. naan ma ñii gëw ma leen duñ sama référence doo ko nettalee parce que booy ñëw suba doo dugg yow kon nag boo Cheikh Oumar Diagne xaw ma desee biir présidence de la République c'est parce que la muy wax dafa bokk ci seen projet c'est parce que la muy wax dafa bokk ci loolu ñu tuddee daawa la la Cheikh Oumar Diagne di wax dafa bokk ci normé tarixe yi mais nag loolu moo leen di të loolu moom mooy të projet bi loolu moom mooy jaaxal projet bi parce que suñu magi diine yi dañu defar réew mi suñu magi diine yi dañu leen jox bopp suñu magi diine yi ñoom ñoo ñu gënal ñun suñu jëmm yi xam nga ñun dañuy xeex pour démocratie démocratie mooy ku ñëpp na mais ñun ci këru diine yi amul démocratie ñun ñoo naan sëñ bi kaay yaa ñuy jiite loolu amul la tubaab bu ko mu tur sax. dañuy wax démocratie wax royaume mais kaay yaa may jiite tubaab amalu ko to kon ñun foofu lañu toll ngalla nañ ñu bàyyeeg suñu diine ngalla nañ ñu bàyyeeg suñu këru diine ñoom ñi gëmul dara na leen yàlla dimbaleeg seen ñàkkug ngëm mais li wóor mooy danañu xar suñu tànk tubay pour que lii nga xam ne moo nekk ci réew mi ñu daal di ko fii jëlee ci nu gën a gaaw parce que nag gis ngeen li xew ci wàllu élection législative nee nañu nu ko def le 17 novembre man defe woon naa ne xeex njiitu njublan ci Macky Sall laa koy mujjee def mais nekk di ñii dañoo njublan la njublan ba mel ni garabu yoo ci dëng conseil constitutionnel tontu na président délégué le 11 juin juillet du mois juillet ak maintenant ça fait deux mois kañ la ñu publier décision bi ci journal officiel démb le 17 démb pendant deux mois téye nañu document bi ñoom garde ko le bi joomay di def récité récité boobu mu doon récité dicté préparé mboobu bi mu koy génne képp ku bokk Pastef ku dem ci benn plateau de télé da ngay taal sa téléphone won Sénégalais yi ne yow yor nga décision conseil constitutionnel man jàppoon naa ne Macky Sall dong lay xeex ci njubla mais nekkati ñii ñoo gën a njublan Ismaïla Yassine kon vous les Sénégalais vous parce que élection yi ñu jëm li ñu ci bëgg mooy gis ngeen dindi nañu parrainage gis naa waa ju ñàkk xorom sax mu naan wuy parenage bi ñu dindi eh, waa seen waa jooju te yoroon sécurité bi te ñu jox ko boo xam nga inspecteur des impôts bu ñu dégg sécurité waroo aay voilà nee na am na ñoo xam ne dindil nañu leen parrainage bi xam naa ni ñu ngay fecc ma ne ko man bu fekkee ne man mii maa la taxee wax yow ça veut dire que xamuloo ko man bokk ci élection ak ñàkk bokk ci élection élection yii ñu jëm bu ñu ci bokkutoon ma takk sama ndigg baatar campagne parce que ma ne ma toll woon ak Macky Sall foofu laa toll ak ñii te ñii du ma leen may dara moom Ousmane Sonko bu yóbboon a xam ne lu mu ko jaral pour yàq réew mi parce yàqul réew mi parce que dafa bëgg dafay yàq parce que dafa cuune dafay yàq parce que xamul day yàq parce que mënul day yàq parce que amul xam-xam pour li mu bëgg ci réew mi mën koo matale lu mu ko jaral nag pour mu mën a yàq réew mi moom dana xam ne dana ma rey wala ma rey ko mais réew mi dana defar incha allahu donc invité les forces vives que ñu seen doole pour que élection yi ñu jëm ñu jox majorité opposition te yaakaar naa ne suñu campagne sax mun naa bañ a metti man de wax naa leen nee naa leen wut leen ay son yu bari rek yu yu baax yoo xam ne moom sëñ Ngundu waa jële seen son rek ngay teg moom moo ko wax réew boo bëggee mu dox opposition bi ngay jox assemblée ñoom ñuy nguuru nga jox leen exécutif bu ko defee ñun ñi nekk assemblée ñun opposition bi dina mun a contrôler l'action du gouvernement et li ma mooy bu ñu jëlee réew mi réew mi dina dox parce que nag dafa am ay nit ñoo xam ne ay nit ñu jar a bàyyi xel lañu ay nit ñu am parcours quand je vois une Anta Babacar Ngom mais ku wane preuve am la quand je vois un Thierno Bocoum mais ku am xam-xam la ku wane preuve am la quand je vois un euh, euh, euh, Tass Thierno Alassane Sall mais nit ku am probité extraordinaire la quand je vois